tey ci say intervention dégg nañ la nga rafetlu liggéey bi nga xamante ni jëwriñ bi def na ko ci côté euh, niveau baccalauréat bi nga xamante ni am nañ pourcentage bu jéggi dayoo aussi ñu déggaat la ba tey ci biir say kàddu nga rafetlu li nga xamante ni moo di euh, bon ampleur bi nga xamante ni UVS def na ko ci euh, jàngale ba xale yi. waaw dëgg la ndaxte mbasu mbasum ren mi. dafa ñëwoon pour vraiment nërmeel lépp luy économie ci ci àddina bi ba bu woon seen xarañ ñoom waa ministère de l'enseignement supérieur de l'innovation ense ak euh, éducation nationale ak euh, enseignement professionnel Sénégal da doon dem ci année blanche te année blanche mm, li muy firndeel mooy lépp lu ñu liggéeyoon ci at mi dafay neen daanaka boo xoolee ay milliards yi milliards lay lay doon loo xam ne perte pour pour réewum Sénégal moo tax ñu rafetlu vraiment ñoom seen liggéey liñ ci liggéey liggéey koy d'abord ci ay invention inventé loo xam ne dafay dimbali fajkat yi ci faj fajum jàngoro bi mais aussi gunge état bi ci ay conseil ak ci seen xam-xam mais surtout ci ay euh, création yoo xam ne def nañ ko surtout li ñu gë gën a liggéey nag ci njàngale mi ba nga xam ne njàngale mi dogul ñii dañuy jàng seen kër utiliser ay TIC ba nga xam ne lépp bi ñu defee examen muy résultat yu baax. tey jii ñu jàpp ni euh, naam ñu ngi rafetlu li nga xamante ni moom université virtuelle mais ndax noté wuñu benn jurul benn laxisme ci ñi nga xamante ni ñoo di élèves yi ndaxte tey jii le fait que ñu toog ci seen biir kër di utiliser seen téléphone wala seen tablette di jàng euh, au lieu ñu def ko mais dañuy concentré wu sax ci li nga xamante ni moo di entrepreneuriat ñu ci bëri léegi ay jaaykat la ñu mujjee doon. non bon je pense que du du du du mbir mu bon au contraire des avantages. de, de l'enseignement de l'université virtuelle. cest à que ça te permet de faire d'autres activités tout en continuant à apprendre. Donc, mën nga continuer di jàng parce que li ngay jàng apprends, yow yaay jangal sa bopp mën nga ko jëlal ay heure mais dina la permettre aussi nga am ay waxtu xam ne mën nga défi leneen loo xam ne dina la dimbali ci sa jang donc moo tax université virtuelle bi man lim dama yaakaar ne sax d'ailleurs moom moo war a nekk avenir u njàng ci Sénégal Mmh. Euh, merci beaucoup. Merci bien.